salaamaaleykum mbokk téléspectateurs yu 2STV la télévision autrement am nañ mbégte lool ni ñu koy defee saa su ne jàkkaarloog yéen ci seen émission amul na boo amul na boo nag ni ngeen ko xamee fii la lépp di leere ba tax na tey dañu dalal soxna soo xam ne ñu ngi koy wax madame Mboup yaay Fatou moom nag boo ko déggee mooy maire de la commune de naw Naoudé eh, nekk tamit présidente mouvement bi ñuy wax euh, renouveau patriotique bloc pour l'émergence du Sénégal ñu di ko wax rek salaamaaleykum soxna si. Euh, maaleykum salaam monsieur Diouf euh, maa ngi lay delloo nuyoo. di nuyu téléspectateur u 2STV yëpp en particulier waa ñiy seetaan amul nëbbo mu nekk mm-hmm. émission bu faar comme ni nga ko waxee Euh, di la remercier ci invitation bi. waaw euh, soxna si ni ñu ko xamee journée internationale de la femme 8 euh, mars bu nekk dañ koy feete ci àdduna bi yëpp ba tax na tey sax ñu am privilège yu dalal ab soxna soo xam ne donc day yëngu ci wàllu politique nekk aussi ci Sénégal nekk acteur de développement donc loolu dañ ciy am mbégte lool ci 8 mars bi dalal la ci sunu plateau amul na boo waaye rek d'abord li ma bëggoon rek ñu doore mooy nga wax ñu mairie bi nga xam ne moom nga jiite mooy commune bi muy Ngathie Naoudé fan nekk ci Sénégal. Euh, commune Ngathie Naoudé mu ngi nekk euh, ci département de Guinguinéo euh, région de Kaolack mais bon booy xool sur la carte pour dem fa donc doo ñëw ba kaw ngay ñëw ba Kaolack on est à 17 kilomètres de Kaolack sur la route nationale en allant vers Kaffrine mhm. donc foofu la ñu situé géographiquement. waaw très bien wax naa ko sànq donc ñu ngi ci 8 mars bi moom la ñuy mars bi thème bi année bi dafa laal mbirum parité. mais parité nekk mbir moo xam ne ba léegi am na ci xel yoo xam ne leeru ci ma buggoon rek euh, yow en tant que jigéen nga ñëw ci li nga xam ne mooy parité ngir mbokk téléspectateur ak sa mbokk jigéen ñi. Um, euh, vraiment merci beaucoup monsieur Diouf parité bi euh, boo ma ci laajee dinaa ci sawar ndax dafa nekk concept boo xam ne dafa nekk naturel par exemple kër pour ñu fonde une famille il faut mu am góor am jigéen donc la société noonu la définiroo donc ñu gis ne euh, instance de décision yi ay nit bu ñu bokkee nekk ci réew dañu war a bokk di toog di xalaatandoo euh, ku nekk xam ne nit ku nekk am na lu mun a représenter jigéen ñi dañu am seen place fu ñuy nasee ak fu ñuy noccee parce que ñoom dañu concerné ñoom ñooy yaay ci kër yi euh, parité bi bi muy ñëw Sénégal on peut diir que dañu nekk avant-gardiste tuuti parce que ay nit ñu xarañ yàlla may nañu ko lool ci Sénégal ñu indi parité bi ñun ñu appliqué ko ba tey euh, waa Nations Unies bëgg ko def horizon 2030 pour àddina bi yëpp alors ñun suñu réew parité bi lu tax euh, ñu instauré ko mooy déjà jigéen ñi dañu nekk population bi gën a mag bi ëpp ci population yi te instant de décision ñu néew fa lool te li tubaab di wax on ne peut pas faire le bonheur des gens malgré eux te loolu yaakaar naa ne xel yëpp nangu nañ ko donc bu ñu bëggee def li nga xam ne moo mën a jëmale réew mi kanam faw jigéen ñi wax ci seen xalaat mais parité bi euh, concept bi am na nu ko nit ñu dul expliquer ba dañuy jàpp ne dañu bëgg diir góor ñi mbagg du loolu parce que man je dis toujours bu ñuy wax jigéen ñi jigéen ñi moi je dis ci terme parité jigéen nekkul foofu citoyen ak citoyenne ñoo fa nekk jigéen yaa ngi ko nekk ci sa biir kër ci sa wetu borom kër. waaw sax am na ñoo xam ne parité boobu dañ naan parité bi ban place la ci biir kër gi. voilà parité amul ci biir kër gi. parité amul ci biir kër pari parité amulul am ci biir kër. ndax parité borom kër a fa nekk ak soxnaam jigéen a fa nekk ak góor ak borom kër ndax jigéen la féminité yaakaar naan ci sa jëkkër ngay wane sa féminité mais boo demee fa ngay liggéey liggéeyee foofu citoyen ak citoyenne ñoo fa nekk. donc loolu aussi dafa nekk symbolique bu am doole ci parité bi boo xam ne daf ko biaisé ci suñu réew. Mhm. donc euh, loolu am na ci solo pour parité bi mën a gën a taxaw ñu mën a jox parité bi xam ne parité dafa ñëw mhm. pour dooleel. mais mhm. ñëwul pour wàññi doole walla pour fragiliser. au contraire dafa gën a jox góor ñi plus d'éléments. pour mieux choisir. maanaam daal parité ñëwul pour wàññi doole góor ñi. ne leen euh, fi mu toll nii yéen a newoon borom kër waaye da ngeen di pousse ñun léegi ñooy takk tibe yi. Euh, daal di jël seen place. au contraire parité bi dafa ñëw pour que jigéen ñi mën a gën a fekkee fi ngeen di nasee pour mën leen gën a jox seen xalaat ngeen mën a gën a jël les meilleures décisions. Hmm. parce que noonu lay doxee même ci biir kër yi noonu lay doxee. Hmm. ndax euh, borom kër dina wéet teg soxnaam laaj ko xalaatam ci dara waaye bu ñu génnee moom mooy joxe aviam wax ne lii la jël décision bi nga xam ne moo adéquate te am na yoo xam ne bu ko soxna si waxuloon du ko xam. defe naa loolu la mag ñi doon woowee waxtaan ak sa ngégenaay. tout à fait mooy waxtaan ak sa ngégenaay hmm. bu ñu duggee nag citoyen comme citoyenne tey ji da ngay gis euh, jigéen sa jëkkër euh, sa borom kër mën la jël en charge ngay ngeen bokk di liggéey yow nga nekk jigéen mënoo jël sa borom kër en charge donc loolu moo taxoon ñu buggoon rek ñu équilibrer loolu. moo tax ñu indi ko ci bërëbu liggéeykaay yi et rax na dax ci dolli ci institution yi nga xam ne ñooy dogal. donc euh, mais parité boobu aussi am na fu muy xaw a sooxe euh, ci Sénégal naam euh, am nañ ci ay jéego yu mag yu ñu def mais man dama am loo xam ne dama koy woowee parité arithmétique maanaam foo teg benn góor rek forcément nga teg fa benn jigéen souvent góor gi mën na manquer compétence comme jigéen bi mën na manquer compétence bi est-ce amul lu war a jiitu parité boobu nga xam ne c'est arithmétique. waaw wax euh, du nekk lu ko war a jiitu parce que parité bi muy ñëw xam nga parfois pour euh, nga nga régler ay inégalités il faut mu am li ñuy wax un coup d'ascenseur c'est-à-dire euh, parité dafa nekk un fait boo xam dañ koy teg après nag ñu xool fait boobu naka lañ koy organiser parce que mooy base bi c'est-à-dire société bu bëgg a émerger bu bëgg a décoller bu bëgg a dem vers le développement il faut que jigéen ñi ñu am kàddu jigéen ñi gisoo benn société boo xam ne les femmes sont laissées en rade société boobu jëm kanam donc donc loolu dafa nekk benn phénomène bu am importance maintenant teg nañu parité bi maintenant il faut l'améliorer et le rendre plus rentable mm-hmm. donc amélioration boobu mooy ñëw ci parité bi ci loxo kan lañ ko teg aujourd'hui suñu réew instauré nañu parité on dit nañ nañ parité bi pour jigéen ñi la mais application parité góor ñi ñoo koy appliquer surtout boo koy xool dans les instances politiques tey ji euh, parti politique bu ñu nee list électorale c'est cinquante pour cent cinquante pour cent alors pour ce qui est du quota des femmes jigéen ñi duñ ko décider seen bopp góor ñi ñooy toog fale xool jigéen ñi leen gën a favorable ñu tànn leen te loolu dafay pose lu problème parce que même dans les parti politiques da ngay gis ne jigéen ñi nga xam ne dañu xaw a am tuuti benn leadership féminin bu ñuy dégager elles sont la plupart du temps combattues góor ñi dañ leen di combattre ba pare boole leen ak seen i jigéen ñu di leen combattre di ci teg donc loolu dafay nekk lu difficile il faut que ñu xam ne ku nekk ñu jox la li nga moom jigéen ñi nañ leen bàyyi ak seen parité ñoom ci seen bopp ñu choisir la meilleure personne à la meilleure place parce que bu ñu bàyyee suñu biir rek ñun du ñu farfarloo. mais góor ñi bu ñu ci duggee rek dugal ci parparloo. waaw mais souvent il se pose un problème nag de formation. Mhm. parce que gis nañu euh, li xew assemblée nationale euh, parité bi bi ñu ko taxawalee gis nañ ne euh, ñu ci par exemple bañ teewee ci assemblée nationale xeex ak xuloo maanaam dafa mel ni lañ leen tànnee ci liste mu mel ni dafa mel ni parti yi dañu amoon problème compétence bi ñuy tànn ñi nga xam ne ñoo war a bokk ci seen liste parce que y a eu un problème de casting quoi li xew ci assemblée Euh, tout à fait parce que parti politique yi dëgg la aussi am nañ problème de compétence parce que booy xool euh, monsieur Diouf euh, si suñu réew ñi nga xam ne ñoo am yenn compétence yi nanguwuñu dugg dans l'arène politique parce que jàpp nañ ne politique bi niñ koy defee ñoom gisuñu seen bopp mais moi je pense que et aussi c'est l'occasion aussi man pour man de lancer un appel à toutes les forces vives et à toutes les compétences la politique c'est l'art de gérer la cité bu ko buñ ko tilimalee c'est-à-dire c'est pas la forme c'est pas la matière moo moo moo tilim mais c'est l'application alors l'application ay nit a koy def si ces gens-là sont remplacés par des gens yi nga xam ne am na ñu yéene am nañu probité pour mën a def la chose correctement moi je pense comme ça lañ ko mën a régler mais sinon euh, du ñu jóg ci façon yooyu parce que dans les partis politiques il faut le dire y a une carence vraiment de de de de surtout de femmes même góor ñi sax euh, mais li bi gën a bi gën a criard mooy jigéen ñi pour ñu am yenn yenn niveau yi. waaw mais est-ce que formation bi war waruñ ci mettre l'accent pour outiller les femmes ba nga xam ne bu ñu leen joxee li nga xam ne moo di parité ñu mën a post yi yi occupé ñu mën ci euh, mën ko doxal nu mu waree. Euh, loolu moom dëgg la formation yi nit ñi ñu ngi ci comme on di ñu ngi essaie di ko di ko combattre di def ay formation mais. Euh, comme li nga xam rek euh, arène politique bi dafa nekk loo xam ne amul en fait benn permanence euh, booy xool daanaka législature bu ñëw rek pratiquement assemblée bi dafay changer donc yeneen nit ñooy ñëw ñi amoon formation ci législature bi passé dañuy génn ñeneen ñëw ñu war leen a formé waat balaa formation bi yemb ba ñooñu di santé seen bopp élection ñëw nañu wax leen changer donc moi je pense que les gens qui peuvent ñu am naturellement ah les les aptitudes pour vraiment euh, nekk ci yenn place yi dañu war a dugg ci arène politique bi ñu nettoyer ko moi je mm. pense que loolu nekk na lu fondamental ci Sénégal mm. surtout jigéen ñi aussi ñu encourager d'ailleurs ñun euh, loolu mooy suñu rôle et puis euh, ñu koy jéem a def parce que ñun ñi nga xam dañ nekk jigéen ba paree dem nekk ay maire on essaie de donner l'exemple de montrer qu'on peut faire la mën nañ def politique de façon vraiment euh, adéquate comme ni mu war a nekkee Euh, pour montrer l'exemple et puis encourager les autres à venir aussi nous rejoindre. waaw surtout si capacitation bi nga xam ne mooy capacitation des femmes est-ce que li ci nguur gi teg ay jéego yow en tant que femme et leader euh, doy na la. Euh, nguur gi doy na ma ah parce que nguur gi li muy teg les capacitations mooy li ma la wax rek capacitation yi nekk na c'est des formations mais kan la ñuy former ki ñuy former yan aptitude lay am. figure toi que dafa am élu yoo xam ne il faut nga defal leen sax alphabétisation donc processus de formation bi mu ngi fi mais ki ko war a jël foofu la problème bi nekk dans les dans les institutions mais loolu tam ñu ngi ci parce que jigéen ñi ñu ngi jël euh, ñu ngi jël conscience organisme yi ñu ngi jàppale jigéen ñi pour ñu gën a mën a dëgëral parité bi pour parité bi bañ a nekk loo xam ne euh, dañ leen naan une patate chaude seen loxo dañ leen naan jox nañ leen ko mais mérité wu leen ko ndax bu ñu la joxee dara te mérité woo ko aussi ñu gis ne dafa am inconvénient mais je crois que la voie qui va suivre mooy ñu retirer ko te mm-hmm. ñaanuñu yàlla nag egg foofu mm-hmm. waaw euh, kii di formation aussi di financement euh, soxna yi bu ñu leen formé war nañ leen financer ñu mën a di yëngu ci euh, ay ay domaine d' yi leen intéressé mais gis nañu aussi souvent dafa am ay ligne de crédit yoo xam ne li nga xam ne moo di nguur gi da koy taxawal te ligne de crédit yooyu léeg politique da ciy gën a rax Euh, ba tax joo xam ne dañuy jóg sax di kaas ne financement bi bu fekkee bokkuloo ànduloo nguur gi doo ci jot. xam nga loolu mooy euh, toujours comme li ñuy wax ci doxalin wi te doxalin ay nit ñoo koy def euh, am na ñoo xam ne dañu am amuñu dimension républicaine mais am na ñoo xam ne nag am nañ ko bon mm. état bi vraiment mettre na la sur pied ay mode de financement yoo xam ne normalement jigéen yëpp ñoo si war a mën a bénéficier wu. mais man bëgguma ñu jël euh, mbirum financement cano catalogué rek ko pour jigéen parce que hmm. jigéen ñi aussi am nañ yeneen i préoccupation d'où la nécessité que ñuy waxtaan ak jigéen ñi laaj leen lan mooy seen préoccupation bàyyi leen ci seen biir ñun suñu biir bu ñu waxtaanee ñun xam nañ li nga xam ne moom la ñu soxla moo gën a urgent pour ñun euh, et je pense que les gens essaient de faire euh, de leur mieux ci hmm. loolu waaw euh, toujours ci financement yooyu gis nañ euh, kii nga xam ne moo di Moustapha Diop di ministre bi yore microfinance euh, mi ngi wër Sénégal léeg di joxe ay financement yéen waa Ngathie de est-ce que jot ngeen ci. waaw ñun ministre bi ñëw na fi def na comme tout procédé dafa am d'abord une phase boo xam ne dafay def lancement wu loolu ñëw na à Kaolack pour toute la région de Kaolack xam nga ni région de Kaolack dafa comporter ñetti départements yi ñoo ci nekk. muy le département de Kaolack le département de Nioro ak le département de Guinguinéo donc def nañu lancement bi ba état bi promettre na une euh, somme de 600 millions pour les femmes de la région de Kaolack bon ñëw nañu recensé nañu les groupements de femmes actuellement euh, d'après information yi ñu am ñu ngi koy institutionnaliser et on espère que ce sera du concret. Mmh. waaw euh, foofu ca Ngathie Nawde euh, yow yaay maire bi. ou bien meres comme disent euh, nos amis canadiens euh, yow daal euh, foofu par rapport ak 8 mars bi nu ngeen koy waajalee. bon 8 mars bi ñun dañ koy envisager à l'échelle régionale parce que man bu ma ko defee Ngathie de rek am na yeneen communes yoo xam ne dañuy bëgg ñëw naw de pour ñu def ko fa parce que comme vous savez ñun suñu zone yooyu dafa nekk zone yoo xam ne ici passe pas grand chose. donc occasion la pour ñun ñu dajee ci suñu capital région euh, régionale muy euh, la commune de Kaolack ñun euh, commune yi nekk ci les trois départements ñu defandoo fête un huit mars pour les femmes pour toutes les femmes de la région de Kaolack hmm. donc concept boobu dañ ko def pour mu permettre ñu mooy li ñu doon wax léegi rek ñun jigéen ñi pour que ñu mën a jàppale wante hmm. ñu mën a xamante ñu mën a nasandoo di noccandoo di réfléchir ensemble pour trouver des solutions il faut que ñuy fréquenter wante il faut que ñuy jege wante il faut ñu ñeme wante donc euh, heureusement pour nous ba ñu amee journée bu mel ni 8 mars ñu jagleel ñu ko au niveau international ñu koy profité na di ci boole toute obédience politique confondue ñëpp ay daje ñun c'est la ça c'est la femme ñun noonu leen ko fas yéene fêté et comme euh, dafay tombe le 2 euh, le un mardi on s'est dit que on est dans une dynamique de rééducation parce que euh, comme on dit toujours li ñuy wax rek développement ay comportement la mooy mën a nit vers le développement. le mars dafay tombe le mardi ñun dañu ne dañ koy fêter dimanche bi muy le 6. alors pour que ñu bañ a jox ay nit alibi le 8 mars ñuy bàyyi seen liggéey pour ñëw di fekkee si ndaje boobu ñuy def parce que liggéey mooy li prépondérant ci ci ci nit ci fiwu nit. Hmm. waaw donc muy lu am solo mais 8 mars boo ko seetloo benn fan la. bu ñuy célébrer euh, ne jigéen daal la ñuy célébrer ci àdduna bi ñu gis ne 364 jours yi nga xam ne moo des ci année bi lu ñuy defal jigéen. Euh, xam nga 8 mars boo gisee ñu hmm. def ko jagleel ko jigéen muy déjà benn fan bu ñu seppi. Hmm. c'est pour fàttali importance bu jigéen am ci société. te yeneen jours yi aussi. Hmm. man dama jàpp ni euh, nit ñi lépp lu ñu xëy rek di def jigéen ñi lañ ko defal te ñun xam nañ ko. parce que ñun ñooy yaay ñun ñoo ne ci kër yi ñun ñoo ne ci école yi ñun ñoo ne ci marché yi ñun ñoo nekk fépp donc tous les jours c'est pour nu mais le 8 mars c'est très important parce que daf ñuy permettre ñu fàttaliku ñun ban poids la ñu am ci suñu société dañu am poids bu am importance parce que développement ci jigéen ñi la mën a jaare sous-développement aussi si ñun jigéen la mën a jaaree parce que surtout dans notre pays nga xam ne ñun on représente plus de 52 pour cent de la population benn deuxièmement aussi naturellement ñu jigéen moo yor moo yor kër. Mhm. waaw muy loo am solo jigéen moo yor kër gis nañ ne Sénégal am na ñaari premier ministre yoo xam ne ay premier ministre yu jigéen lañu euh, une question assez provocatrice mooy euh, aka une euh, présidente de la République pour le Sénégal. Ah ci sa xalaat c'est pour bientôt. Euh, c'est pas exclu hein je ne crois pas que pour bientôt xëy na peut-être fii ak ay mhm. deux trois mandats ci kanam xëy na. ñu gën a am mat jigéen ñi gën a am maturité. waaw euh, l'acte trois de la décentralisation euh, dindi na li nga xam ne moom la ñuy woowee la ruralité loolu moom loolu la bëgg a dindi communauté rurale amatul maanaam lépp ay commune la léegi waaye boo ko xoolee ba tey euh, dans la pratique gis nañ ne ruralité mi ngi continuer di di di am ba tey am na loo xam ne jog na pour corriger ko ñu di ko wax PUDC muy plan programme d'urgence de développement communautaire loo xalaat ci plan boobu. PUDC dafa nekk euh, plan boo xam ne dafa ñëw à son heure c'est-à-dire comme li ma wax léegi suñu ci début émission bi euh, suñu réew mi alhamdulilah dañu am xa am nañ xarañte c'est-à-dire euh, mën nañu analyser xool jalons yi ñu war a poser ruralité boobu nga wax c'est un fait ah man jàppewu ko muy taar mm-hmm. parce que choix de vie la nit ki mën na choisir de vivre en ville ou de vivre en campagne parce que bu amul ñu vivre en campagne du am ñu bay te on a besoin de l' agriculture bu ñëpp nekkee ay cité bu ñëpp mm-hmm. meloon ne Dakar nga Dakar amatu fi tool kon fu ñuy bayee gerte fu ñuy bayee ñebbe fu ñuy bayee leneen donc il faut que mu am ñu vivre en campagne te campagne dafa am ay critères yu muy répondre alors PUDC dafa ñëw nekk programme d'urgence pour régler des inégalités mm-hmm. et des benn benn benn benn retard boo xam ne système bi bàyyee na ko gannaaw ñeneen ñi alors euh, PUDC man personnellement euh, sama vision ak vision PUDC dafa collé woon parce que sama commune comme ni nga ko waxee commune la boo xam ne dafa nekkoon communauté rurale on est en milieu rural euh, mu am suñu bu ñu bëggee améliorer suñu suñu nekkin dafa am démarche bu ñu war a am donc PUDC nekk programme bu ambitieux boo xam ne dina résoudre beaucoup de déséquilibres euh, mais benn benn euh, hic boo xam ne discuter nañ ci à plusieurs reprises te ñu ngi siy gën a def accent mooy l'implication de de l'expertise locale. Mm-hmm. dans la dans le. dans le la mise en œuvre du PUDC te loolu wax dëgg yàlla def nañ si ay jéego yu am importance. waaw parce que programme du loom du moo manqué Sénégal ah boo ko seetloo depuis nguuru Senghor Abdou Diouf Abdoulaye Wade ba fi ñu yegg si tey ci président Macky Sall ay programme ki plan yàgg na fi am mais toujours muy pêché mooy ci exécution bi euh, est-ce que yow euh, gis nga ne execution exécution PUDC mi ngi ci yoon wi. Euh, mu ngi ci yoon wi parce que bii ni ko defee exécution bi dafa ñëw ak acte trois de la décentralisation léegi point focal bi. c'est le maire la mairie la commune mooy le point focal te xam nga ni bu dee ku ñu élire la tu as une obligation de résultat donc PUDC bi da nga ciy xar sa tànk tubéy pour que ñu dugal la ci ba pare l'exécution ci say bët lay lay nekk donc da nga koy suivre di ko di xam ne lii ñu wax c'est de la réalité programme yàgg na fi am mais un programme aussi concret moi je pense que euh, maa ngi koy door a gis mm. te aussi programme bi fi mu jógee mooy li ko gën a def mu concret mooy xaalis bi nekkul lu ñuy prévoir c'est de l'argent que l'État a su économiser teg ko mu nekk un budget réel c'est pas un budget prévisionnel donc mmh. c'est de l'argent qui est là et qui doit être dépensé te je crois que loolu dafa dafa gën rassurant ci PUDC waaw wax nga sànq war nañu euh, mettre à contribution l'expertise locale ci yan anam maanaam voilà euh, expertise locale bi je donne l'exemple PUDC dafay joxe des fourniture de matériel parce que boo xoolee en milieu rural am na une forte main d'œuvre jigéen ñi surtout si on revient ci jigéen ñi ñu war a euh, mu am loo xam daf leen di gàllankoor lu bari mooy soq ak wol c'est-à-dire transformation céréales yi mm-hmm. alors transformation céréales yooyu non seulement dafay privé jigéen ñi ñu am temps bu ñu liggéeyee mais surtout l'avenir c'est-à-dire xale yi boo demee en milieu rural xale yu jigéen ñi ñooy soq bu ñu wàccee école 16h 17h ñoom ñooy soq imagine seen kër bu amee njëlu 5 kilos yow yaa koy soq balaa ngay pare timis jot na bu timis jotee tu es en milieu rural amuloo électricité boo jàngee say leçon donc guddi gi avec la pénombre boo taalee yi mm. wala leneen da ngay gé gaaw a gémmantu et puis da ngay nelaw et loolu dafay impacte sur les mauvais résultats scolaires ba pare xale yi dañuy teel a bàyyi jàng donc niveau nit ñi fay dëkk en milieu rural seen taux dafay nit ñu euh, am jàng dafay gën a tuuti donc PUDC bi ñëw ne pour que ñëpp mën a amandoo chance jàng instru instruire am xam-xam il faut que tâches ménagères yu difficile yooyu ñu éradiquer ko pour régler les inégalités euh, ñuy def fourniture de matériel euh, muy machine yuy soq ak yuy wal di ko alléger jigéen ñi alors man contribution bi ma ci doon wax mooy suñu utiliser l'expertise locale c'est-à-dire menuisier métalique bu nekkee ci région de département gee Guinguinéo wala mu nekk commune naw de ñu jox ko la fabrication de ces machines la kooku dafay am benn relation at vitam aeternam ak machine boobu du rekk ne produire naa machine machine ba dem na man pare naa ci maa ngi xalaat beneen commande mais dafay am lu ñuy wax service après vente mm-hmm. muy mën a di suivre machine boobu ñu mën ko amortir mu mën a durer am durée d'amortissement ba nga xam ne machine boobu bés bu ñu koy réformer moom mooy jëndaat beneen machine et que cet emploi euh, cet ouvrier là dafay am liggéey bu permanent pour moom donc loolu tam mooy dëgërlaayu euh, programme bi donc mmh. loolu moo tax ma waxoon ma wax ne Euh, état bi te ñu ngi si discuter discuter na si nit ñi jël nañ suñu xalaat te ñu ngi siy jëf ay jéego li ma la wax léegi mhm. pour que expertise locale bi ñu gën ko mettre euh, à profit ci waaw wax nga sànq njàngoo xale yu jigéen yi surtout euh, ak tâches ménagères yi nga xam ne dina leen di handicapé souvent mais xale yi seen yu jigéen yi surtout dans le monde rural boo seetloo dinañ dugg école sax naam mais dañ ciy teel a génn pour diverses raisons loolu euh, ci sa xalaat nan la ñu war a mën a def pour mun ko xeex pour le maintien donc dans le milieu scolaire. Euh, loolu état bi am na ci ay programme aussi. Mm. mais euh, xam nga nit ki bu ñuy wax le conditionnement opérant c'est-à-dire nit ki buy jàng école su amee ay résultats yu baax dafay gën a sawar pour toog ci école ba. mais figure-toi kuy dem école booy booy dem le lendemain yow fekk la veille jànguloo say leçon yaa ngi ragal boo demee bu ñu la interroger est-ce que tu vas trouver day da ngay rus ci sa kanamu ay morom loolu du la encourager pour nga sa wax ci dem école donc pour encourager loolu PUDC bi euh, dispar euh, déséquilibre yooyu la ñëw pour régler ko parce que am na euh, tâches ménagères yi éclairage bi parce que éclairage bi en milieu rural ñu bëri dañuy wax électrification mais parfois en milieu rural on a besoin que d'éclairage te éclairage yi am nañu ay solaire euh, am na yeneen forme yoo xam ne dafay jox nit ñi éclairage kii bu baax ñu mën a xale yi mën a jàng ñu gën leen a mën a encourager et aussi euh, loi yi permettre ñu ñu bañ a yi éviter par exemple le mariage précoce parce que nekk na mm-hmm. fléau boo xam ne dafay gën a gaaw a génne xale yi jigéen ñi ci école yi euh, distance yi entre les CM et les et les et les écoles primaires loolu tam dafa nekk un problème il faut que état bi mu jéem ko régler parce que village jamono dafa doy waar dafa neexul hmm. léegi ba da ngay gis koo xam dafay jógee euh, école cycle primaire am jeex mu war a dem collège il est obligé fa mu war a jàngee mu am hébergement te xam nga jamono neexul tu peux pas héberger ay plus de quatre cinq personnes war leen a dundal Euh, ça pose problème ñu bëri aussi seen jàng day yàqu ndax loolu donc en milieu rural infrastructure scolaire ak euh, programme de PUDC bi di accompagner je crois que loolu am na solo trop pour régler disparité yi te j'espère que euh, d'ici peu dootuñu problème yooyu dina wàññeeku baax suñu réew. Mm-hmm. waa am na beneen mbir muy bourse sécurité familiale kii di président Macky Sall ne da ko teg ci loxo jigéen ñi. Euh, ñuy waxtaanee 8 mars bi waxtaanee jigéen ñi seen place euh, ñu gis ne euh, am na fulla boo xam ne bëgg na ko jox jigéen ñi jël lu toll ni bourse sécurité familiale ne ñoom si seen loxo lañ koy teg ñoo koy gérer à la place de góor ñi d'abord décision boobu yow noo ko jàngatee en tant que jigéen. waaw décision boobu dafa dafa am importance parce que xam nga société bu nekk jigéen lu mu am këram la koy yóbbu et c'est pour la famille. am na ñuy yóbbu ci ngénte yi de ak xew yi. waaw ngénte yi ak xew yi loolu réconfort social la mënut a mm-hmm. ñàkk. man je dis toujours Sénégal dañuy wax naan euh, nit ñi dañu mën a yàq dañuy def ay xew dañuy def ay ngénte mais ça c'est le réconfort social nit ñi ils ont besoin à défaut du confort il faut le réconfort nit ñi il faut ñuy daje ci xew yi defal seen bopp. am na foo xam ne bu ñu fa tolloo dina wàññeeku il faut que économiquement réew mi foo xam bu fa tolloo mais yooyu yëpp doo ko gis ça c'est le mm-hmm. langage économique qui va parler maintenant. président de la république bi mu jël euh, bourse sécurité familiale di wax ne ki koy fayeeku ci famille bi jigéen bi lay doon c'est-à-dire c'est la centralité ah position bi jigéen utiliser si kër moo tax mu def ko te loolu dafa wane aussi toujours pour fàttali jigéen ñi place bu am importance bu am euh, dama lay jox exemple euh, monsieur Diouf sur le plan économique ñun jigéen dañu war a jël conscience sensibiliser nañ ñu ko sensibiliser ko le consommer local développement mënul jóge fenn suñu consommer wul li ñu am muy sur le plan industriel muy sur le plan alimentaire industrie alimentaire on gagnerait ñun ñuy consommer li nga xam ne ñun ñoo koy liggéey suñu réew te ñun jigéen ñi ñooy dem marché donc je pense que message boobu le président de la république bëgg joxe pour wan jigéen ñi place bu am importance bi ñu am ci société bi. waaw mais est-ce que bourse sécurité familiale yegsi na ci commune Ngathie Naoudé bourse sécurité de manière effective egsi na fa de façon effective mhm. et je crois que puisque c'est un programme national est-ce que eggul fépp c'est ce que je me demande awma ci nag ratio bu leer mais man sama mhm. commune egsi na fa te mode biñ ko tegee euh, vraiment gisuma ci politique mhm. gisuma ci politique parce que je donne euh, un exemple xanaa bu ñu doon seet euh, politique man duñ ma ci duñ ci boole sama commune parce que bokkuma parti au pouvoir donc euh, politique gu ci benn parti lu dul yor sama mouvement bopp dem ak moom ba ba élection donc gisuma ni sincèrement dañ ko politiser mais vraiment effectif na fa Euh, depuis le début et vraiment amuñu ci benn problème. La transition est toute trouvée ah yow créé nga sa mouvement ñu tuddee ko mouvement euh, pour le renouveau patriotique nga ne bokkuloo euh, ci yi nga xam ne mooy parti au pouvoir effectivement. Mmh. mais terewu la nga am position ci espace politique bi maanaam est-ce que mouvance présidentielle bi nga àndal wala est-ce que opposition bi nga àndal. waaw man de man parti bi ma àndal mooy Sénégal man c'est ce que man Sénégal moom ma intéressé. Euh, parce que gëw ma ni suñu réew toll nañu foo xam ne euh, ay parti politique mun nañ fi tudd ay parti politique ñun on est un pays en phase de construction euh, gis nga je prends toujours l'exemple de la Chine Chine dañu nekkoon ci ay parti ñu naan parti unique communisme ci lii di mm-hmm. cherché wu nit moo ñëw indi vision mu Deng Xiaoping mu ñëw teg vision ñëpp ànd ci jéem a matérialiser vision matérialiser vision boobu te loolu doxalin moo ko indi aujourd'hui am nañu président bu ñëw teg un programme muy le plan Sénégal émergent te wax dëgg yàlla mu nekk programme boo xam ne boo ko jàngatee c'est un programme qui peut nous mener à l'avant maintenant bu ñu jël programme di ko personnaliser man personnellement euh, trois axes yi nga xam ne ñoo caractériser le plan Sénégal émergent dama gis ne ñooy axe fondamental yi nit mën a sukkandiku pour aller de l'avant mmh. sur le plan personnel et sur le plan collectif parce que boo defee d'abord nit ki booy def sa bilan bopp tu fais d'abord ce qu'on appelle une transformation structurelle c'est-à-dire da ngay réfléchir fu ma jógee fan laa egsi ak fan laa mën a jëm ak yan moyen ñoo may may ma dem foofu nga ñëwati Euh, ñu ne la le euh, l'égalité donc dafa nekk concept yoo xam ne altruisme lay jur ci nit mhm. patriotisme ah ci ci ci programme boobu donc mhm. euh, mu nekk loo xam ne vraiment euh, lu ñuy adhérer la parce que ñun ce qui nous intéresse la reconstitution du Sénégal mhm. waaw boo gisee aussi man laaj la loolu ne la fan nga fete ci géewu politique bi est-ce que da ngaa ànd ak nguur gi wala da ànd ak opposition bi nga ne Sénégal nga àndal waaw euh, loo gisee ma laaj la ko dafa am euh, débat boo xam dafa taxaw par rapport ak référendum bi ñii ne oui la ñuy voté ñii ne non la ñuy voté yow yaay Fatou looy voté. waaw man wii euh, oui laay voté. oui oui laay voté. lu tax lu tax may voté oui dañu nekk ci république république dafa am ay institutions. xam nga je suis vraiment désolée que moom euh, monsieur Diouf ñu poser débat bi en termes de oui et en termes de non c'est pas ça mm-hmm. dañu am ay élections yu ñu ñëw muy 2012 avant même 2012 Sénégal dafa mës am ay élections ñu ne suñu réew démocratie la moi je dis que démocratie nekkul ci rekk euh, liberté d'expression euh, droit de vote c'est pas ça la démocratie loolu kese ne se limite pas à ça démocratie c'est des institutions fortes les hommes passent mais les institutions restent mmh. aujourd'hui institutions yi fi nekk muy l'exécutif muy le législatif le judiciaire dañ ko war a respecter jox ko gëddëm mm-hmm. lu parfait nag amul fenn et dañuy tendre vers plus de perfection Mm-hmm. aujourd'hui le débat qui se pose sur le le référendum c'est désolant ñii ne wii ñii ne non non par rapport ak lan et oui par rapport ak lan loolu la ñu war a poser non oui par rapport aux quinze points proposés par le président Macky Sall non par rapport ak li nga xam ne moom mooy proposition yi Macky Sall def voilà bu doon dañu wax ne oui par rapport aux propositions yi président def comme ni nga ko waxee mm-hmm. euh, non par rapport ak proposition yu président de la République def mm-hmm. je serai mais je suis désolée mais ce n'est pas ça mm. c'est non parce que on dit que quel euh, le président de la République en étant can, euh, candidat avait dit que je voulais faire ça mm-hmm. même en étant président même en étant président a dit je voulais faire ça mm-hmm. on ñu jël loolu bu ko ramener à une promesse ba bëgg fi dellu si yoo xam ne xawoon na taal suñu réew bi ay maa waxoon ma maa waxoon lële mm-hmm. moi je pense que euh, suñu réew nañu war a consolider lenn loo xam ne am nañ ka mooy jàmm la paix sociale dafa am importance àddina bi réew yu fi nekk di théoriser ba taal seen réew yi ñoo nekk tey ci problème on n'a qu'à savoir raison garder suñu bëggee suñu réew nekk comme ni ñu koy waxee te daf ko nekk une grande démocratie il faut qu'on regarde les choses pas avec les nerfs mais vraiment ak la tête euh, quinze points le président de la République pesé premier point bi rek révision du mandat on est obligé mu yóbbu ñu ci référendum parce que constitution bi bu un moo ko consacré loolu révision du mandat fu ñu ko posé dañu war a dem référendum yaa y a d'autres points aussi mooy comme li ma la wax ci plan Sénégal émergent bi président de la République bi fi nekk dafa nekk ci benn logique am gis na programme am fal nañ ko ci dara mu ne man plan bii laa gis pour liñ ma fal ma mën ko def plan boobu mu accès ko si ñetti point benn plan benn point bi mooy éviter yi nga xam ne indil nañu ay dérives yu bëri mooy 15 points yi mu lim ci proposition référendaire bi. Mm-hmm. en ce qui concerne vie bi ñu wax ne le conseil constitutionnel jox na ko moi je suis désolée et j'ai mal quand j'entendais ñu ay nit ñuy wax ne président dafa waroon passer outre avis du conseil constitutionnel mais Mamadou ñun dañu am exemple bu simple. mooy suñu réew dañu fokk kilifa tey jii yow même boo nekkoon sama xarit ma ñëw laaj la sa avis ci benn problème bu ma concerné avis euh, le fait que ma laaj la sa avis mu siiw ñëpp xam ko bu ma tenir compte ci sa avis mooy yow teguma la fenn te le président de la république il n'a pas le droit de dire ou bien di wan peuple bi ne man sama in suñu institution yi ñu bokk teguma ko fenn du moment qu'il demande qu'il a demandé l'avis du Conseil constitutionnel et que cet avis-là est devenu public cet avis devient une décision mm-hmm. c'est la ça la morale mmh. républicaine qui l'exige waaw man am lu ma bëggoon euh, laajte mooy avis bi wala mu nekk décision ñaar yëpp est-ce que fondewul sur le droit mais ci loolu laa doon ñëw waaw c'est-à-dire conseil constitutionnel lu mu la wax c'est-à-dire président de la république buy ñëw il peut pas être en constitution. maanaam constitution conseil constitutionnel waxeewul xalaatam. waxeewul xalaatam conseil daf koy fondé ci droit. loo ko jox dafa koy filtrer ci constitution lu constitutionnalité. Mm-hmm. donc lu la jox ça veut dire que loolu c' est constitutionnel ou c' est ou c' est pas constitutionnel. moom foofu rek lay basé avem donc mënu la jox loo xam ne. dafa anticonstitutionnel nga ne dama koy appliquer. mais ça veut dire que donc bu fekkee ne président Macky Sall toppul li nga xam ne moom la conseil constitutionnel wax du du question ne conseil constitutionnel ci boppam sax la désavoué mhm. mais euh, constitution bi ci boppam la la désavoué exactement exactement fa laa doon daanele cest à su si suñu waxee ne président de la république la conseil constitutionnel wax bu mu ci tenir compte mais loolu mooy nañ jël suñu constitution bi lakk sànni fële te def royaume rek te toog lu neex président de la république def man loolu mooy sama gis-gis ci loolu donc débat bi dafa nekk oui pour les points ou non pour les points j'aurais été mais point yi président de la république posé dafa nekk point yoo xam ne yu am importance la et ça nous permet de verrouiller et que mu ñu bañ ñu te mu euh, ñu mën a dem de l'avant waaw mais bu ma la déggee madame Mboup euh, mooy euh, li nga xam ne moo di non bi dafa mel ni ne gaa ñi wax non dañu wax non parce que président Macky Sall tenirul parole am mais waxuñu non parce que 15 points yi baaxul. oui man loolu laa dégg ci débat yi. non parce que moo ko waxoon président ñi naan man président bett na ma ñii naan waroon na ko respecter war man loo rek laa dégg. déggaguma non pour point bi d'accord ma ci. pour que fi mu nekk nii actuellement euh, constitution bi sept ans la wax dañuy dellu ci cinq ans kon wii la foofu bu dee d'accord nañ ci cinq ans maintenant conseil constitutionnel nee na mënul nekk. Mm-hmm. te conseil constitutionnel bu nee mënul nekk sa veut dire que selon suñu charte réew mënta nek mm-hmm. donc mais réduction de mi ngi ci biir mi ngi ci biir affaire bi. te dafay nekk à partir de ce mandat là bii moom bu jeexee beneen mandat buy ñëwati Sénégal cinq ans lay doon te peuple bi loolu la bëgg parce que bañ koy changé dañ ko njëkk def cinq ans ñëpp d'accord ci di voté ko référendum. Mhm. bañ koy changé di ko yóbbu sept ans dañ ko yóbbu assemblée nationale. maanaam peuple ba fa mu tegoon tànkam en 2001 muy bëgg cinq ans yi xëy na foofu la toll ba léegi. foofu la tollu ba léegi ndax peuple bi d'accord na ci cinq yi donc yeneen point yeneen point yi ci des. dafa nekk ay points yoo xam dafay renforcer le droit aujourd'hui par exemple point bi président de la République évoqué muy le euh, le statut de l'opposition xam nga nit dafay ñor poste nit nit rek la président de la République nit la dafay am ay sentiments dafay am ay sensations comme ñëpp alors bu ñu tegee loi ne la tu dois président de la République ak opposition bi am na statut ñu ne opposition bi ku génn ci élection positionné wu telle place yow yaay le chef de l'opposition mais tu es l'interlocuteur du président de la République ya y un calendrier bu ci war a nekk et puis il y des tu droits te ku am ay droits ñu jox la ko ku am ay devoirs aussi def ko mais aujourd'hui dans ce brouhaha là kan la ñu mën a wax ne mooy opposition ak kan moo nekk kan moo nekkul opposition kan mooy le parti bu nekk opposition on ne sait pas et ça crée des troubles Et je pense que c'est le moment vraiment dans notre pays que ñu régler aussi cette question donc loolu stabilité rek lay jur ci réew. Mhm. waaye yéen politique yi nga xam ne yéenay def politique ah j'allais dire hommes politiques et les femmes politiques aussi euh, bu ngeen di def politique souvent da ngeen di teel a wax. parce que bu fekkee ne dañ koy reprocher le président Macky Sall ne dafa dafa wax waaye munoon na laajte ñi nga xam ne ñooy ay conseillers juridiques am ñu wax ko ndax mën naa nekk wala mënul nekk balaa muy engagé wu di ko répéter presque plusieurs fois pendant des années ne dina wàññi mandaam donc xëy na bu laajte woon loolu du ko ci fekk. Euh, loolu nag man duma ma mën a wax ne euh, laajte na wala laajtewul mm-hmm. mais nit ku nekk da ngay xool situation ak contex xam nga ni élection yu ñu jaar 2012 élection yooyu bañ cay dem kenn parewul à 100 pour on se disait aussi même élection ndax dina am nit ki aussi man euh, jéemuma défendrant comme Sénégal li ñuy wax damay wax rek euh, naturellement ce que je pense élection yi dañ ci dem ak euh, vraiment en en catastrophe élection yooyu tey jii aussi ñu revenir ci le conseil constitutionnel à l'époque taxoon na ba ñu bëgg taal réew mi. maanaam bi mu ne kii di président Abdoulaye Wade am na droit briguer beneen mandat. ci 2012 tout à fait waaw donc il faut que ñu am raison garder te ba ba élection yi passé ba ñu bañee ne conseil constitutionnel ba mu waxee ne président bi fi nekkoon le président sortant maître Abdoulaye Wade am na droit troisième euh, mandat. ci ëllëg sa parti ñi doon xeex dañu dem déposer ji seen euh, seen euh, seen candidature. ci même conseil constitutionnel conseil constitutionnel. waaw mais man su ma jàppee ni yow amuma gëmuma sa wax ma sa wax mais dama koy nangu une bonne fois pour tout mais mënuma ko nangu quand m'arrange bañ ko quand ça m'arrange maanaam logique bi moo doon euh, ñooñu doon euh, ŋàññi décision conseil constitutionnel. Hmm. ndax li mu ne Abdoulaye Wade mën na présenter wu waat. Hmm. dañoo waroon boycotter. dañu waroon a bañ dañu waroon bañ a dem présenter wu. parce que bu dee ñoom li leen conseil constitutionnel wax nanguwuñu koo def. bu ñu présenté woo mais tout bu ñu présenté woo mooy nangu nañ nangu nangul nañu conseil constitutionnel place am nangu ne président bi nga xam ne newoon nañ ni amul droit mandat jour boobu lañ nangu ne am na mandat donc il faut que ñu baña a taal suñu réew mi man si loolu laay oote pour ay décision ku nekk nañ la jox sa cër conseil constitutionnel tout ce qui touche à la constitution conseil constitutionnel moo ko war a valider kon lu mu wax nañ ci teniru pour le bien de notre pays loolu mooy li nga xam ni mooy dëgg mais ñu ne président bu fi nekk ñu di la gàllankoor di la xeex di la mettre les bâtons dans les roues on tourne en rond ba mandat am jeex ñu jàllaat élection keneen war a ñëw ñu tourner en rond à quand à quand le développement de notre pays man loolu mooy sama souci mais vraiment institution yi nañ leen respecter jox leen seen cër conseil constitutionnel décision bu mu jël ci constitution la ko basé la parole tutelle du chef de l'État loolu charte réew mi moo ko wax ñun ñëpp ñun sénégalais ñun ñëpp ñoo ko waroon a bañ président laat bu ñëwoon tey taxaw ne man constitution li mu wax li ma conseil constitutionnel wax dama koy passer outre man de Mamadou ma wax la ko keroog laay bàyyi politique man jéem a jéem a xool nag ban réew laay taxu parce que xam naa lii mën a nekk du mën a nekk parce que président de la république ak position bi mu toll xam nga nit kii dañuy wax toujours ne am na droit mënoon na passé ut mënoon na def lii. Mhm. mais nit ki du loo am droit rek wala loo sañ rek nga def ko. Mhm. nit da ngay mën a euh, joxe cër wane exemple te loolu wax dëgg yàlla dañ ko ci remercier di ko ci féliciter mhm. te ñu ñu teg xilaafa gi euh, la mu àttan ñu teg yëf fa mu war a tegu euh, conseil constitutionnel joxe na décision nañu expliquer maintenant les points yi nga xam ne moo war a dugg ci constitution bi nañ ko expliquer sénégalais yi mu leer ñëpp expliqué ko nag en toute bonne foi ñu expliqué parce que jéemul jarul ñu ciy jéem a dugal yoo xam ne vraiment xel xalaatu ko sax. Mhm. parce que euh, damay am na yoo xam ne bon peut-être que je peux pas le dire si ci plateau comme ni ñu koy waxee. Mhm. mais euh, débat politique bi nañ ko def mu gën a am tuuti moral. Mhm. dina am importance. waaw sànq ne nga en 2012 ñi nga xam ne ñoom ñoo waroon euh, ñoo doon ŋàññi décision conseil constitutionnel euh, logique bi moo doon ñu boycotté. bañ participer ci élection boo xam ne conseil constitutionnel ci boppam moo koy aar moo koy saytu euh, mooy joxe sax résultat officiel yi président bi buñ ko falee ca kanamam lay waat te ñoom nangul nañ ne euh, président Macky Sall fi mu toll ni mooy président de la République est-ce que ñooñu dinañ mën a taxaw ëllëg ci quand même kanamu conseil constitutionnel boobu nga xam ne nee nañ Macky Sall bu mu topp décision am dafa yóbbu seen dossier candidature pour beneen élection. mais loolu moom la moom laa lay wax léegi nee naa la institution nañ ko jox cëram parce que y a beaucoup de contradictions ci affaire conseil constitutionnel. da ngay gis c'est pas que conseil constitutionnel bu joxee décision en temps faveur nga appliquer ko bu joxee décision boo xam ne arrangé wu la nga ne du ko du ko fi defee loolu du démocratie euh, démocratie la ñu wax institution yi dañu am seen force conseil constitutionnel bu joxe avis liy yoon mooy ñu tëniru ci mais li ñu fi gis mooy bu joxee avis bu arrangé ñii ñu ne waaw bu joxe et puis les gens bu joxee avis bu leen arrangé wul ñu ne du fi amee mais loolu mënul dem man nag je fais je lance un appel au peuple sénégalais nañu ànd ak seen lucidité xale yi bu leen kenn génnuloo ci biti di leen manifesteloo di leen tojloo ay kaar wala di leen sànniloo ay xeer policier boo ko sànnee xeer bu la jàppee yoon day lay teg loxo yow yaay sonn ak sa famille aujourd'hui ñi doon manifester ci euh, le les élections de 2012 ña nga ca kaso ba léegi ña ñu doon manifester ñii ña nga ñi ngay doxi seen soxla même bu dul Euh, nguuru wala leneen ñu ngi ak seen liberté te yéen privé nañ leen seen liberté mhm. le Sénégal est une démocratie ñu ngi ak suñu ay carte le débat démocratique ça se passe lors d'élections fu le débat démocratique di amee ña ñu dénk boobu la ñuy def seen bilan ña nga xam ne ñoo war a voté boobu la ñuy jël position avant ça y a le travail nanu liggéey suñu réew ànd ku am xalaat bu baax génnee ko joxe ñu teg ko lu jëmale Sénégal kanam mais bu ñu fi nekk di divertir nit ñi di créer instabilité di créer panique di créer une psychose boo xam ne personne kenn du oser investir kenn du oser génn ci la ñuy développer nit ñi nekk ci stress ci loo xam ne c'est des batailles en réalité crypto personnel politique bi yàgg am Sénégal na population yeewu façon politique boobu il faut ñu jëlee ko fi nit ki booy bañ dara danga koy bañ ba mu jeex mais munoo ne conseil constitutionnel. bañ na bu doga dogalee lii léegi man naa dem déposer euh, euh, bañ na ne metre Wade par exemple du am troisième mandat jour ba mu ko defee le lendemain ngeen dem déposer seen candidature si vous ne reconnaissez pas l'institution ne le fréquentez même pas mm-hmm. mais loolu amu ci donc ça c'est de c'est de la politique politicienne te loolu on gagnerait à ce que ñu changé ko ci suñu réew. Mm-hmm. vraiment waaw waaw président Macky Sall dafa proposer quinze points am ñu ne quinze points yooyu. Euh, bokkoon na ci yi nga xam ne moom la commission nationale de réforme des institutions saytu woon ah mu doon euh, un document global euh, am na tamit li nga xam ne moo di assise nationale quinze points yooyu boo ko seetee xëy na da ko fekk ci biir mu mel ni rek Macky président Macky Sall li ko doon reproché mooy fait que mu seppi quinze points yooyu ba na bañ a jël document global bi nga xam ne xaatimoon na ko ne d'accord na ci li nga xam ne moom mooy conclusion assise yeeg yooyu waa quinze points yooyu bu fekkee ne foofu la nekk ci biir CNRI yi nekk ci biir assise nationale kon ñuy taxaw naan xëy na ñoom li nekk ci biir 15 euh, points yi xamuñu ko euh, xanaa dañu bokkuloon ci assise yi. Euh, xam nga mooy li may wax rek toujours monsieur Diouf institution dañ koy yëkkati jox ko ay prérogatives ñu jël ko dénk ko nit nit ki nag prérogative yi ko dénk moom na mu koy defee moom moo ko xam. yi président de la république boppam moo ko moo leen sant liggéey assise nationale dafa amoon période boo xam ne dañ ko def te président de la république bokk na ci ñu ko ñu ko ñu ko fekkee donc bu toogee nag am mission boo xam ne daf ko wax ak ay population ñu jox ko seen confiance ne ko doxalal ñu dem mais na muy doxalee nag kooku si prérogative am la. man da ngaa ànd ci mu sepp 15 points. bàyyi li nga xam ne moom la assise national proposé woon ak CNRI li ñu ko remettre comme man aw ma ci lu may ànd ak lu ma dul ànd xam nga li ma xam moom mooy président de la république jox nañ ko ndugg mi xool na ci li nga xam ne loolu la bëgg a toggee damay ànd ak moom ci togg gi ma bëgg a togg ba xam ndax loolu kat jàpp naa ni mën naa togg wala mënta togg moom moo seppi quinze points yu ko arrangé ça ce sont ses prérogatives léegi man naa xool ndax pré quinze points yooyu ma jox ndax bokk na ci loo xam ne lu mën a créer stabilité suñu réew la bokk na ci loo xam ne dafay renforcer euh, démocratie suñu réew man ci loolu lay xool mais mm-hmm. leneen li moom duma ko xool parce que du sama prérogative. Mm-hmm. kon daal 15 points yow ni nga ko gisee comme ni nga ko waxee ànd nga ci te fas yéene nga voté oui. Mm-hmm. tout à fait tout à fait 15 points yi ma gis. Euh, vraiment xam naa ne luy dooleel ci ñu démocratie la luy gën a yokk état de droit luy gën a euh, wàññi. doole bi nga xamante ne nit ku ñu dénk institution surtout président de la république dina wàññi euh, tuuti doole bu bare gi ko état ki ko kii bi joxoon. Mhm. waaw parce que gis nañ ne euh, lii di président de la république euh, influence bi mu am ci pouvoir législatif bi xëy na y la séparation des pouvoirs mais li ñuy constater mooy que ki nga xam ne moo di président de la république presque mooy buur di bu mi lépp lu mu bëgg wala lu mu bëgg a nas loolu mooy am ci réew mi ba tax na sax ñenn ñi seen xel di tey ci décision conseil constitutionnel yeeg yooyu naan ce que du moo nekk ci suuf pour di leen dicter ñu war a def yow ko gisee. loolu xam nga nit ñi moom bu yëf yi ambigu rek ku nekk di nga am ay supposition mais loo xam ne teg nañ ko ci charte fondamentale mu nekk droit euh, comme je dis toujours les institutions restent mais les hommes am na koo xam ne tey bu ñëwee nekk assemblée nationale par exemple wala nekk président de la république dina mën a limité wu ci li nga xam ne moom la ko yoon jox ki nga xam ne moo nekk assemblée dina conformé wu ci li ko yoon jox du nangu ñu koy dicter lu muy def te yoon jox ko possibilité yi parce que hmm. loolu yëpp c'est dans la marche de la démocratie pour avoir les hommes qu'il faut au places qu'il faut hmm. donc euh, bu ñu ko tënkee mu nekk loi bés dina ñëw ña koy appliquer parce que loi bi application aussi dafa si am solo ak nit ñi koy appliquer bés dina ñëw ñi nga xam ne dañuy ñëw pour appliquer ko dañuy tënku ci li loi def mais mu nekk loi dafa am doole parce que hmm. droit lay doon ak devoir du doon lu neex euh, président wala lu ko naqari wala lu lu lu ko arrangé wala lu ko arrangé wul c' est la loi c' est la loi et tout le monde gagnerait à s'y conformer. waaw bëggoon naa quand même ñu jàngat li nga xam ne moo di conséquence politique oui ak conséquence politique non am ñu ne bu oui amee mooy kii di Macky Sall moom euh, jël na ndam li ñu ne bu non amee mooy que dañ ko désavoué peuple bi àndatuñu ak moom te conséquence bi sax mooy dafa war a sax démissionner yow noo gisee loolu. waaw loolu laay wax xam nga encore référendum bi ñu ngi ko indeeti ci problème mu président de la république le référendum bi ça ne concerne pas le président de la république parce que président de élire nañ ko mandat ba pare mu élection bi Macky Sall di def campagne électorale ak keneen ak keneen ñu ne dañuy tànn le président de la république c' est déjà fait et c' est derrière nous te élection boobu échéance am jotagul mm-hmm. alors le référendum c'est pour la consolidation de notre état de droit de notre charte fondamentale nu ñu koy defaraatee gën ko tëggaat ba mu gën a normal répondre à nos attentes bu ñu waxee non du président de la république la ñu wax de xam nga lu wax mooy charte ba mu waxoon nañu continuer ca loola xam nga loolu mooy lan. Ah, maanaam pour yow désavoué wuñ kii di président Macky Sall. mais non mais dañoo bëgg situation bi nga xam ne moo amoon muy wëy. tout à fait loolu la signifie bu ñu nee non mooy président Macky Sall kenn désavoué ko de dañu newaat la nekkoon charte bi nañ ko bàyyi na mu mel. na mu mel nag mooy opposition amul statut euh, président de la mandat bi sept la et ainsi de suite et ainsi de suite les droits des citoyens fa mu nekkoon fa lay continuer loolu rek la bëgg a nekk la mën a nekk le président la République il a un mandat pour faire des résultats le mandat bu ñu ko jox c'est pour 2019 d'ici là bu 2019 jotee il fera son bilan par rapport ak li ñu ko jox mais référendum bi nekkul ci bu ñu nax nit ñi naan leen wii euh, mooy ànd nañu ak président Macky Sall débat référendum nekkul ci président de la république. waaw mais waa APR aussi ñoom kon ñoom aussi ñu ngi entretenir débat bu mel noonu parce que boo leen déggee ñoom dañ naan oui bi mooy Macky Sall gagné na ba noppi maanaam 2019 sax promenade de santé lay doon. ah loolu de c'est désolant ñoom seen bopp ñoo plongé seen bopp ci débat bi. loolu de c'est désolant man de li ma la rek man Sénégal moo ma ñor te li may wax c'est pour lancer un appel au Sénégalais nit ñi nga xam ne euh, vraiment. Sénégal ñun amuñu feneen fu suñu réew lu ko jafar ak lu ko jàmm rek la ñu bëgg suñu dëgg la ñuy wax référendum concerné wul président de la république ku ci voté oui san ne veut pas dire que da ànd ak Macky Sall san ku ci voté ah maanaam mën ngaa voté oui fekk àndoog Macky Sall. Euh, teguma ko ci ànd bi comme ni nga ma ko expliqué. moo tax ma mm. wax la ànd bi. Mm. c'est-à-dire man pour man. ànd ak Macky Sall ak ñàkk ànd ak président Macky Sall du instant bi Macky Sall le candidat ce hmm. sera aux élections présidentielles aujourd'hui c'est le président de la République qui est en train de construire notre pays ñu ñoo ko dénk maintenant point yi ñu posé point yooyu ci améliorer suñu référendum la te il moo tax mu am devoiru laaj ñu ñun peuple bi man de gis naa ne par rapport ak fi ma toog fi ñu toll nii bu ñu jëlee point yi améliorer ko dina gën a dëgëral suñu yoon bi ñu bëgg a jëm daf ñu ko proposé bu ñu nee wii wii lay doon bu ñu nee non mu ne ah kon li ngeen bëggoon moom la ñuy continuer jeex na hmm. mais amul incidence man gaw ma ni am na incidence démissionné bi ñuy wax ak yooyu yëpp gisoo loolu démission lu muy démissionné par rapport à quoi dañ koo désavoué mais non mais non loolu du désaveu hmm. du désaveu du désaveu parce que moom dafa nekk ci liggéeyam nee naa la président de la république dafa teg programme am ne man sama programme c'est le plan Sénégal émergent c'est la démarche de l'individu du président de la République lay wax waxuma mhm. nag pour nit ñi di yaakaar damay euh, xalamal wala damay def yooyu c'est pas ça damay wax rek analyser benn démarche bu ma gis nit ki bu ñëwee ci dara ñu dénk ko dara dafay teg plan teg programme ne man li nga xam ne moom ngeen ma sas fii laa yaakaar ni fa laa bëgg a dem moom jàpp na ne le plan Sénégal émergent bu mu teg proposé ko Sénégalais yi jàpp nañ loolu moo mën a tax mission bi ko Sénégalais dénk mu mën cee yegg mu def ko ci ñetti banquas beneen bànqaas bi nag mooy révision constitutionnelle bi nga xam ne moom la proposé buñ ci àndee ak moom moom dafa jàpp ne loolu la buñ ci àndul ak moom yeneen dëkk yaakaar naa ne yi gën a yeneen point yi loolu mooy le vécu des Sénégalais émergence bi ñu bëgg suñu réew am ko jéego yi jëm vers l'avant yi ñu bëgg suñu réew am ko bés bu bilan jotee ci point yooyu dañuy def bilan mm-hmm. donc aujourd'hui il y a pas de c'est pas un, un problème de désaveu ou d'aveu ou d'avis favorable pour le président de la République waaw maanaam daal président Macky Sall buñ ne ko oui euh, mu continuer liggéeyam ci sa gis-gis bu mm-hmm. buñ ne ko non mm-hmm. mu continuer liggéeyam parce que oui beeg non bi ci proposition yi nga xam ne teg na ko ci table ji loolu la concerné mais ne maanaam daal mandaa bi nekkul en jeu. bi nekkul en parce que moom mandat am voté nañ ko ba pare charte bi ko tënk mi ngi dox mi ngi fi moom lañ yor yow ci nga tënku man ci laa tënku te moom it ci lay tënku amul feneen maintenant bu nee charte boobu nañ ko xoolaat pour lii di ñëw pour suñu avenir ñu ne ko déedéet duñ ko xoolaat luy xew dara du xew day continuer li muy liggéey continuer dérouler son programme. mais ay question nekk fi naan wéy bu waxee ñu jël ramener loolu mooy politique politicienne bi c'est-à-dire dañuy ramener les choses ci loo xam ne nekkul lu essence am te taxu ko jóg peuple bi nañu xool mbir mi fa mu tegu teguwul fenn fudul foofu élection référendum du élection président de la république élection président de la république jàll na lii orientation la on veut tourner à gauche ou on va tourner à droite ou on va continuer looloo fi mën a nekk hmm. maintenant si on décide de continuer on continue sur la même lancée et ça veut dire que quinquennat moom duñ ko am xanaa beneen référendum. Mhm. mais du doon bi maanaam daal euh, bu fekkee voté dañ non. Mhm. mooy quinquennat bi maanaam cinq ans yi bu yóbboo ñu fàtte ko. ah nañ ko fàtte. waaw parce que référendum bi voté wii mooy mën a tax naa ñëw voté non mooy nañu continuer septennat. waaw mais am na luy am ci diggante bi fii ak 2019 muy élection législative à part référendum bi ñenn ñi ne c'est la mère des batailles comme ni ma ko faral sax di waxee muy élection boo xam ne dafa am enjeu ndax kii di président Macky Sall bu fekkee ne euh, néewal nañ ko doole fële ci assemblée nationale wala nangu nañ majorité bi ci moom li des yi nga xam ne mooy 2019 euh, boo moytul cohabitation lay lay dund yow euh, en tant que donc nga nekk ci jiite mouvement boo xam ne day yëngu ci wàllu politique nan nga mën a analyser situation législative ak ban position nga ci fas yéene am. monsieur Diouf man parfois damay dégg yenn prévision yi. Mhm. damay naan est-ce que ñii ñu ngi ci terrain bi. terrain politique bi réellement xam nga comme je dis élection présidentielle c'est le candidat Macky Sall qui doit convaincre le candidat à la présidentielle mooy convaincre mm-hmm. élection législative c'est le candidat pour être député qui doit convaincre kooku keneen la c'est une autre personne bu am ancrage ca fa mu dëkk am ancrage ca fa mu ne am pour convaincre et c'est la somme de ces personnes-là qui donneront une major mooy jox majorité kii wala kële. c'est hmm. très important te bu ñu ko négliger. nit ñi bu ñuy dem euh, population yi bu ñuy votel nit élection législative jusqu'à présent jusqu'à dernière législative yi ñu joué yu am ci suñu réew. Hmm. les gens se disent que bu ñu falee président de la République dans la conception nañ ko jox majorité à l'Assemblée parce que la le souci. mooy la stabilité du pays nit ñi dañu bëgg stabilité xam nañ ne suñu réew amagul maturité wu gérer ay bi euh, bis bicéphalisme comment on je sais pas comment on l'appelle bicéphalisme voilà parce que régime parlementaire doguma la waaye expérimenté woon nañ ko fi ah, gis nañ 62 li xewoon diggante Senghor ak kii di Mamadou Dia boobu fekk na ñun juddooguñu de ah. mais séquelles yi ñu ngi koy dund ba tey kon jógagu fi et pareeguñu amaguñu maturité bi te loolu le peuple le see mm. donc élection de poids boobu am na lu muy signifier mais aussi li ma la wax le choix des personnes se fait à la base dafa mel ni comme élection locale élection locale nit ñi ci base bi choisir voté lu ñu le président de la république dañuy voté ñi ñëw présenté wu à la base pour nekk diriger les collectivités locales. maanaam daal la. Hmm. <laughs> waay. parce que ça se passe à la base. exactement ça hmm. se passe à la base et les populations sont directement concernées. donc buñ ko jël di ko transposer ak ay élections présidentielles ça n'a rien à voir avec la personne du du président de la République ça peut y contribuer mais euh, c'est pas prépondérant ci ci élection yooyu donc nekk fi naan bu ñu nee oui wala bu ñu nee non euh, désavouer nañu le président de la République je suis pas d'accord je suis pas d'accord pour man oui la par rapport aux propositions yi ñu posées gis nañ ne proposition yooyu buñ ko defee tout simplement objectif bi mooy consolider notre démocratie consolider l'état de droit gis-gis boobu la président la plus na ñu xool ndax ñun aussi comme que loolu la ñu bëgg stabilité la ñu bëgg renforcement suñu démocratie la ñu bëgg est-ce que point yooyu œuvre na ci lool ou œuvre wu ci bu dee wii la suñu charte bi fi mu toll ne niñ ko tënkee niñ ko tëggee doy nañu nañu ne kon nag bi nii baax na président buñ ko changé mu ne alhamdulilah bu fekkente nee nañ Euh, li nga wax de dëgg la nii ba nañ koy nañu changer lii nañu changer lii mu ne alhamdulilah et puis on continue sur les trop riches sur les autres riches mais je ne vois pas en quoi ce référendum war na nekk benn benn baromètre euh, eggul foofu mm-hmm. eggul foofu madame Mboup euh, Yaay Fatou ñu ngi lay gërëm di la sant ci li nga teew fii ci suñu plateau amul na boo ñu bàyyi la nga tàggoo maa ngi lay remercier bu bari monsieur Diouf ci opportunité bi ma jox pour ma exprimer wu Euh, di suwetee à toute les femmes une bonne de 8 mars di remercier téléspectateurs yi euh, di jéggalu aussi bu fekkente ni euh, wax ji dëgër na walla am na lu mu ku mu blessé du mm-hmm. loolu taxuma woon a jóg sottante xalaat rekk ak xër ci suñu réew mooy waral loolu donc lu ci dëng dëng maa ngi jéggalu ci loolu lu ci rafet nag ñu xam ne suñu borom la te pour lu gëm ci Sénégal la maa ngi lay remercier di la gërëm di la sant. jërëjëf euh, madame Mboup Yaay faatu euh, yéen mbokk mbokk téléspectateurs yi ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen fàttali rek moom madame Mboup euh, Yaay Fatou moo nekkoon tey suñu invité ci seen plateau amul na boo moom nag moom mooy maire commune bi nga xam ne moo di Ngathie Naoudé nekk itam présidente mouvement pour le renouveau patriotique ak ñu duppee ko tamit bloc pour l' émergence du Sénégal. di leen di jox dox daje donc seen émission amul na boo dimanche bii di ñëw euh, bu 15 jotee maanaam ñetti waxtu ci bëccëg euh, ñu di ko rediffuser mercredi di àllarba àllarba bu ñeenti waxtu jotee muy maanaam 16h ci euh, nasaraan di leen wax rek ne seen émission amul na boo mi ngi ci cappaandaw ji ni ma ko faral di waxee nag seen émission amul na boo bu ko kenn tardé ndax fii la lépp di leere jërë ngeen jof